dans votre site d'information VIP Info pour avoir des informations justes et sûres dans Agam, ak jàmm ci émission bi dit Temps Show Temps Show nag une émission bi lundi. di récap de la semaine Madame li fi qui a jaar ci ay ci semaine bi kon légui légui ñu xol la la Temps Show indi fi ci VIP Info su vous abonné ba noppi bu leen fàttee cloche de notification bi fiñ koy tambalé muy affaire Rangou affaire Rangou nak su ngeen ko déggé moy xalé bu jigen bobu nga xamanteni mo doon organiser ay soirée privée ba nopi teg ci am ben site pornographique bo xamanteni c'était privé pour nga mën fa duggu da ngay fay ginnaw bi ko élément satou Fall di commissaire cybercriminalité tegee loxo ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai bi ñu génn boobu ba tey policiers yi ñu ngi ci liggéey bi di gën a sukkandiku pour approfondir enquête bi mais ginnaaw loolu nag Rangou defaree woon nañ ko foofu ca parquet bi bañ ko deferee nag ba pare si la bénéficier wu benn retour de parquet ci retour de parquet boobu nag pour éléments yi gën a sukkandiku gën a xóotal enquête bi kër mën a gën a xam ay détails yoo xamante ni képp ku bëgg xam fu mu nekk mu ngi ci seen biir site bi di VIP info rebondissement bi ñu leen ciy indi rek mooy jàpp nañ que client wu Rangou yi yooyu doon ñëw di doon débourser lu toll ci fukki junni jëm ci un million manam pour nga bokk ci yendu parti yooyu soirée privée yooyu wala nga dugg ci biir set bi fi nga doon tambalé génnee sa xaliss manam fukki junni la doon muy 50000 amna ño na dañ doon dem ba débourser 1 million de francs lii tamit muy benen kawteef bo xamanteni ni na fi ci dëkk bi ñu tuddee ko l'affaire des filles mineures sextape boo xamante ni amoon na foofu ca Mixta ginnaw bu su korité bu ay xalé yu ndaw yo xamanteni ay mineurs lañu ñu woon jëloon seen benn appartement meublé nek fofu di def naka sudul noonu seen site bi di VIP info indil na leen xibaar bi ginnaw bi yoon saisiré dossier bi sen procès bi mu naroon am mais renvoyé nañ ko ba le 12 juin gëm naa ni daal le 12 juin lañu ñuy renvoyé waat procès bi muy affaire des filles mineures fofu ci Mixta amoon sextape bi ñu don def lii tamit muy beneen kawteef boo xamante ni ñi ngi ko natt foofu ca hôpital Youssou Mbergane ba nekk ca Tëngéej benn médecin daal la ñu jàpp boo xamante ni dafa doon violé benn patientam bu toll ci fukki at ak juróom-ñaar maanaam muy 17 ans ginnaaw nag xale bi bi ñu waxee dafa ne médecin bi dafa doon jël loxoom di ko dugal fu mu ko doon dugal nag mënu ma ca egg ku bëgg xam foofu la da ngay dem ci site bi di vip info point net ba tey dañuy del soit kii doon naat beneen kawteef suñu ñu nee kawteef nag dafa mel ni jamono ji Sénégal nekkee ci confinement ñi nekk ci jamonoy coronavirus dafa mel ne nit ñi seen xel yëpp dafa dem ci def ay ñaawteef kii di Marie-Louise Diaw di top modèle boobu nga xamante ni vidéo gël la ginnaaw bu mu génnee ci scandale am boobu ànd ceeg kawk di Racky Aïdara jàpp leen jamono ji ñuy wax ak yéen dañ ko piraté piraté boobu ñu ko piraté nag sagal nañu fii ay bés danañu gis réseaux sociaux yi daal ay scandale yu mag a mag infecté leen jëm ci wàllu Marie-Louise Diaw lan lañ fay génnee lan nekk lan moo nekkoon ci li ñu piraté ah doy na waar daal en tout cas piraté nañ ko te su ngeen sukkandikul daal ñi ngi dànkaafu fan yi ñu jëm yaakaar naa ni réseaux sociaux yi dina infecté wu te lan lay nar a infecté wu ginnaaw kooku piraté Marie Louise Diaw yaakaar naa ni am nay ñaawteef yoo xamante ni bëgg na ko tegaat ci deram lii tamit muy beneen kawteef dañu naan musiba naaru lay ndaxte aduna mooy waaj a tukki wala kenn xamul kii ñaari borom tur la maanaam muy ñaari homosexuel di góor jigéen ñoom ñoo nekkoon ci réseaux sociaux yi maanaam ci Instagram bi maanaam di solde seen compte ku si nekk di weer sa morom di wax sa bopp naka sa nii doy na waar muy kawteef yoo xamante ni mi ngi xewee fii suñu réew muy Sénégal di ñaari góor jigéen yoo xamante ni ñi ngi doon solde seen compte foofu ca Instagram ku bëgg a bi fu mu mujjee duggal ci sa site boobu di vip info point net ay xibaar yu leer te Qui nak dañuy dem ci benen cas ñu gën ko xam sur l'instituteur public numéro un mu nekkoon fofu ci États-Unis ginnaw biñ ko rapatrier mu ñëw ci Sénégal tok fi ay diir bala yon di ko teg loxo muy Assane Diouf nekkoon fofu ci États-Unis de l'instituteur public mom nak après arrestation biñ ko jappé kérok ci ay 5h du matin fofu ci kërëm ginnaw bu mu don def benn vidéo chef d'inculpation yi ñu jot a nak nag nañu offense à chef de l'État la dafa doon offenser chef de l'État muy le président de la République Macky Sall ginnaw lolu nak yóbbuwoon nañ ko ci procureur après mu bénéficier ben retour de parquet mais appleen ba jamono jiy wax Assane Diouf nanguwul ubbi làmmiñam wax ak enquêteurs yi lépp lu ko enquêteurs yi laaj dafa tëj làmmiñam xamuñu nag ndax luñ ko digal la wala luñ ko conseil mais Assane Diouf daal jamono ji jàpp nañ ko mu ngi ci loxo yoon mais nanguwul ubbi gémmiñam jàkkaarloog enquêteurs yi muy information boo xamante ni su ngeen bëggee am lu ci gën leer dangeen di dugg ci seen site boobu di vip info point net li nak di Ben xibaar boo xamante ni naqar ak lañ leen koy waxee muy le monde de la culture et de la mode ñoo ñàkk benn baobab ñàkk benn géant kooku di moise Ambroise Gomis ñi xamoon ko mu nekkoon animateur foofu ca RTS te doon def élection Miss Sénégal élection Miss Jàngama moom moo génn aduna aljuma bii ñu génn tey muy 5 juin waaw dafa amoon nag benn feebaru AVC boo xamante tëraloon na ko lu yàgg yàgg yàgg moom Moïse Ambroise Gomis génn na àdduna ginnaaw nag balaa muy génn àdduna Moïse ngu nekk xam na ni catholique la woon mais dafa tuuboon dugg ci diine l'islam di ñaan yàlla xare ko aljanna firdawsi yu gën a kawe di ko jaale mbokkam yëpp di ko jaale képp koo xamante ni askanu culture nga askanu mode ndaxte Moïse Ambroise Gomis mën nañu ne tey képp koo xamante ni yaa ngi fii ci wàllu culture wàllu wàllu mode jël na loxoom jàpp ko depuis 2012 bi mu arrêté ba tey gis nañu Miss Sénégal day bu mu doon am dafa melni xorom ci mom moko yoron muy Moïse Ambroise Gomis génn na aduna aljuma ji ñu génn diko ñaanal yàlla xare ko aljana yi firdawsi yu gën a kawe li nak di benen xibar bo xamanteni ni lëmbee na senegal mi ngi commencé won fofu ca Touba ginnaw bu gaay yi jógee naan dañuy manifester ginnaw biñu teje tëjee euh, transport urbain bi ak interurbain bi couvre-feu biñu déclencher ko fofu ca Touba amoon na ay manifestation yo xamanteni tambalé won na fa diggante dëkk wa dëkk ba ak takk der ya waaye ginnaaw loolu xalif général des Mourides yëkëti na ay kàddu yo xamanteni di ñaawlu ñaawtef yo xamanteni ñoñu xalé yi ñing ko doon jàmmaarloog policier yi xamal na len ni que Touba lolu mosu fa am ken mosu ko fa gis kenn musu ko fa dégg dem na ba di leen fu ne na képp ku ñu ràññee ci manifestation yi ñu dem sa kër taal ko ginnaaw loolu nag yaakaar naa ni loolu moo yëkkati révolte ci Sénégal yëpp parce soo nattee fii ci Ndakaaru quartier boo dem manifestation yi taroon na fa lool soo demee ci Kaolack manifestation yi taroon na fa lool ba ñu gis ci ay blessé am benn oto boo xamante ni sax dafa fël benn doomu aadama am keneen koo xamante ni dañu gor loxom ci jaasi soo demee ci Ziguinchor manifestation yi noonu la fa meloon ñu defee seen manifestation yi bi ñu xëyee gis nañu ministre bi de l'intérieur di Aly Ndiaye ak euh, ministre Omarium, Youm Biyor euh, ministre des transports jóg nañu def point de presse biñu ñu askan bi nak amna na yeneen mesures yoo xamante ne assouplissement nañ ko ginnaw couvre-feu bi ñing ko defon euh, vingt h jëm cinq heures du matin wacce waat nañ ko yobbu nañ ko vingt h jëm ba cinq heures du matin transport interurbain bi nak Aly Omar Oumar Youm nee mais suy Tambali dimanche lay tambalé inshallah mais dafa am ay règles ak ay charte yuñ koy joxé ginnaw nak population bi ñoo jogon di révolté wu niko ko Ndiaye restez chez vous lañu waxon mais jamono ji dañu ne rester vigilant parce que am nay assouplissement yoo xamante ni yu bare président de la république jël na ko donte bi ñu tolloo ci ñetti weer parce que jamono ji ñuy wax ak yéen ci feebaru mbas moom je crois que egg nañu ci pic bi maanaam pic bi daal egg nañ ci donc moo tax ñu jël mesure yooyu nee nañu nag te mesure de barrière yi ku nekk na ko respecté ndaxte ku nekk na nga takk sa masque soo takkul sa masque ay daan dina ca fekk lépp loo xamante ni yoon teg na ko soo ko respecté wul yoon euh, dina dal sa kaw ba ci transport bi suñu commencé dawal tamit ku ci nekk am na waxtu boo xamante ni da ngay arrêté raxas sa oto ci biir ci biti loolu nag teg nañ ci ay commission yoo xamante ni ñoo koy saytu su démé ci feebaru mbas bi patay gis nañu acteurs culturels yi ñëpp ñu jëm ci walu culture boobu ba légui ñi ngi joy ci musiciens yi ci art plasticien yi ci dessinateurs yi ci écrivains yi ba ci librairie yi ginnaaw loolu nag le président de la république Macky Sall yëkëti na sombu tollu ci ñetti milliards manam muy 3 milliards tek ko ci loxo ministre Abdoulaye Diop di ministre de la culture Abdoulaye Diop tamit mi ngi tek ben comité bo xamanteni ak ñu muy liggéeyal ñu saytu ko xol naka la ci jappalé acteurs culturels yaakaar naa ni loolu c'est une très bonne nouvelle pour tous les acteurs culturels ginnaw lool sax dina am ben réunion bo xamanteni dinañ ko amal ci samedi samedi bi 15h fofu ci direction SODAV ku ko nar a jiite di Abdoulaye Koundoul di directeur des arts ginnaw ñu tek ben commission bo xamanteni ñoy ñooy saytu ñetti milliards yoyu naka lañ koy séddalee acteurs culturels manam ñetti milliards rek lañ wax nak mais buñu ñu ni ñetti milliards dafa bare ndaxte so xolé ci Sénégal acteurs culturels yi dañu bare ndimbal la rek boo xamante président de la république yëkëti nako tek ko ci sen loxo ginnaw nak biñu annoncé euh, reprise des cours yi ñu xalé yi tollu ci classe d'examen manam ñi def sem 2 troisième ak wara def bac dañu reprendre cours yi manam le 2 juin ginnaw loolu nak ba Dakar dem dik tegoon na ay bus ay disposition yo xamanteni ñi ngi doon jël kat yi ku ci nekk ñu sa destination mais dafa am lu bess lu ci peñ parce dafa am fukki kat ak juroom yo xamanteni ne leen testé dañu positif loolu motax ministre de l'éducation nationale Mamadou Tala reculé ci décisions bobu ba élèves yi ba jamono ji ñi wax kenn ci école mais ginnaw loolu timit jóg na tey am ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ñi ngi naan année blanche day am ou année invalide lép lu ci mënti am rek brisé na le silence te jël na ay disposition ku bëgg a xam fu mu nekk mi ngi ci biir VIP info Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne nak mo yor jangale kat bu kaw muy enseignement supérieur jamono ji nee ben bachelier duñ la orienter lu duñ la orienté ndaxte chef de l'état tek na mesure yep yo xamanteni pour chantier yu nek fofu ci université Ziguinchor ñu égalé ko information bi ku ci am lu la bëgg a da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net ginnaw manifestation yi fi amone fi ci Sénégal ay fan yi ñu genn gis nañu télé bobu di groupe des médias té Sen TV nek fa ñom ñoo defoon eh, eh, manifestation yi ñoo ko doon en direct ginnaw buñ ko woné en direct nak ba askan bi yep xam lan moo xew ci dëkk bi CNRA nag dafa jóg def mise en demeure télé boobu di Sen TV waaye mise en demeure boobu nag yaakaar naa ni bu mu génnee rédaction groupe des médias te Bougane Gueye dirigé ko yaakaar naa ni lu ñu naan tontu du forox génne nañu seen réponse mu doon une réponse boo xamante ne c'est très salé boo xamante ni rédaction des médias génnee na ko jagleel ko kooku di CNRA ku bëgg a xam yeneen détails rek duggal ci sa site bi di vip info point net lii tamit di beneen xibaar boo xamante ni amoon na fa kooku du Bougazelli muy député boobu ginnaaw bi ñu ko tuumalaay woon ci affaire faux billets maanaam ay euh, faux monnaie après Lolu gis nañu jamono ji ñi nekkon fofu sous mandat de dépôt ci rebeus jamono ji ñi wax ak yeen nak avocat di met El amal na ko liberté provisoire ginnaaw liberté provisoire bobu bu mu ko amé nak Bougazeli genn na delluwaat ci njabootam waye Bougazeli nak xamal ni que dina briser le silence manam tek tekkaar ak Nopi bu mu nekkon dina ci genn ba paré avertir na ñan la avertir ñan ñoo ci taxone ah kon bu yoba nañu préparer bu baax ndaxte Bougazeli paré na pour wax lii nag di beneen xibaar boo xamante ni ñu ngi ko jagleel doomu Sénégal boobu muy doomu Bambali bi nekk foofu ca Liverpool ñu tuddee ko Lérès muy Sadio Mané Sadio Mané nag ginnaaw benn sortie bu mu def nee na moom du mës a révélé turu ennemi maanaam ki ko gën a bañ ki ko gën a xeex. du ne a révélé touram daf ko xam la suite mi ngi fofu ci site VIP info mu doon émission temps show bi tous les samedis muy sen récap manam xol xibaar yi fu mu Indi ñu indil leen ko mom lañ leen ci site VIP info ngir am ay xibaar yu leer abonné wu site VIP info télécharger application bi ngeen dem compte YouTube am abonné VIP People TV vous ngeen abonné vous bu faire une cloche de notification Si vous voulez am réseaux sociaux yi dem Facebook VIPinfo.net. info la ñu jox di émission ak show